kàddu wax ak ñoom naa ko ci dee ajana nga lay xaar saxaaba yee sang bi yow fa nga jëm ëllëg lanu bëgg a dem yàlla yoon ni jibril tey gërëm na ñëw sang bee dina la si nay bàyyi xoon baay ba ki ko yeesal moo ko ba sang bee ina la siina yi baay xoon ay ba ak cant war na ñun ñi mu xëyëram bale nag fa ngay jaar te jeg ngërëm ma Sëriñ Saaliwu Mbàkke lay way sang bee ak cant war na ñen ñi mu xëyëram sang bi bale nag fa ngay jaar te jeg ngërëm ma Sëriñ Saaliwu Mbàkke lay way sang bi mu defal lu jombe keroog ba Cheikh bee to demee këram di way keroog ba Cheikh Béthio demee këram di way bu saan jotee cant ko way soo da maam fal di way bàkk Cheikh tey du kat ci biir këram mbàkke bég ba muñ la ca teg ana mën ñu xam ni ak cant mooy li féete kaw fa ma sang bi jërëjëfe Serigne Sall Mbàkke saxoo leen war na noonu Serigne Sall Mbacké. waaw waaw. soxla leen biir war na noo. waaw waaw. sant Serigne Sall gën a kawe. waaw waaw. dambe xeeti jaamu yàlla yee. waaw waaw. jërëjëf Serigne. yeneen ba jël kàddu wax ak ñoom naa ko ci tee. sang bi. ajana nga lay xaar saxaaba yee. waaw. ndeysaan ànd ko ak jëwriñam ju mag bi Seydina ndeysaan moom bi boobu ba tey ba ñu dugg rek moo ñoo ko ànd ak waaw ah, li ma wax ci yow léegi man maa ko wax ci moom ndax liggéey bi bu ma ko ñimee rek ñu mel ni yéen a tax waaw ah, bu ma geesoo gis universel Bassirou Ba ma gisee gis Assane Ndiaye gis a Fall Sarr ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen day tax ba soor ndeysaan sax du ko ko fàtte oh. waaye dama mës di gis ne ku mësaan a indi lu mel ni wala lu ko ndiru hmm. boo ñëwee li mu lay wax mooy lii de màggalu sëriñ Tuubaa gi rek ko at hmm. moo xam bu tabaski jotee nga indil ko ay xar bu xar yi amee nu mu mel ci rafetaay ganaan la lii nan ko denc ba màggal gi ndax lii ci bisub sëriñ Tuubaa bi ko kon lii nga def moom jàpp naa ni def nga koo defatee defati defati defati ba jàpp naa ni loolu nag léegi ñi ñuy seetaan ak ñëpp nag maase nañ ko xam ba tax na maa ngi la ciy wan sama mbég sëñ Sall léegi ni la koy wax nee na moom ko jëkk a defal premier safar moom nga njëkk indi nag boo xam ne comme nii rek la mel loolu nag dafa wane sa bëgg sëriñ bi sa sa jaayante jëm ci sëriñ yow universel fu la waay gis